donc voilà. c'est ça alors euh, beneen beneen cas bi nga xam ne interpellé nañu euh, attiré suñu attention mooy les hommes d'affaires yi nga xam ne euh, pratiquement dugg nañ si politique bu baax mais li ñu gën a bettee mooy un homme d'affaires boo xam ne il est intéressé par les affaires de euh, affaires privées euh, si l'on peut dire de d'un leader politique. le leader de l'opposition euh, pour beaucoup mm. euh, muy Ousmane Sonko mooy le cas de euh, Soro Diop mi nga xam ne Doro Doro Gueye pardon mm. Doro Gueye mi nga xam ne ñu ngi ko tudd ci affaire escroquerie Sidi Ahmed Mbaye et cetera loolu aussi est-ce que Sonko nekk na à ce point une menace même pour ñi nga xam ne ñoo am d'affaires yi wala c'est toujours le système Sonko c'est un c'est un anti-système mm. man je suis un anti-système aussi Et... Sonko un antisystème qui pose des actions système. bon qui compose avec des pro-systèmes parce que mm. loolu c'est son choix moo tax man su may analyser Sonko je dis toujours Sonko de Yewwi wala Sonko de nu mu tuddati de Pastef man mm. par exemple euh, man je suis un anti-système et je l'assume pleinement soo liree sama programme politique di nga xam ne lii nii maanaam xeexul Macky Sall xeexul ay ministre Macky Sall mm-hmm. mais yoon lay imposer c'est-à-dire on n'a pas de problème de personne. on a un problème de système. système bi fi nekk baaxul. maintenant concernant la question. Mhm. Euh, faut ñu xoolaat aussi la définition ou bien le profil des hommes d'affaires enfin de ce qu'on appelle homme d'affaires parce que Sénégal qu'est-ce qui se passe da ngay nekk sukku président wala sukku jabar président. Mm. Euh, liquide yomb la après ñu tuddee la homme d'affaires fekk yow tu n'es là que pour tenir le sac de la première dame tu n'es pour faire le sale boulot en fait man pour man loolu du homme Mm. donc voilà je je je pense que ñu ngi fi tudd ci ay complot yooyu yëpp ay nit la yoo xamante ne dañoo bëgg peut-être prouver euh, par essence au président ou à sa femme et tout ay gestes de loyauté et tout diw la sonal je vais le liquider et tout mais après seen sutura moo ci xaweeku mm. ñoom ñoo ci wàññeeku maintenant euh, man j'ai lu l'article ce matin euh, je maanaam comprendre naa à peu promesse de vidéo paiement de dix millions entre autres tout mais gis nga Sénégal léegi mooy li ma la wax dëgg bi maanaam mën na mën na fulu rek mais day feeñ li ñu teg ci kaw Ousmane Sonko man j'ai toujours dit que dama mës a wax mës ko gëm que ne complot la man moo tax fu ma toog damay défendre Ousmane Sonko dans ce sens là même si man Ousmane Sonko ñu parti am nañ aussi ay différence selon nos idéologies mais par logique d'opposition dama koy défendre parce que xam naa ne liquide ko kese moo tax ñu teg ku luñ ko teg. voilà c'est ça alors ci Ousmane Sonko boobu balaa ñuy terminer peut-être euh, terminer avec euh, la mesure sur euh, le prix du loyer parce que temps bi ñu may pratiquement jeex. non la mesure du prix du loyer du dem fenn. non non nañ dugg ci Sonko d'abord. puisque ñu ngi woon ci moom son discours. ñu bëri ñu ngi koy euh, déplorer euh, mel nii dafay fort ci mbedd bi. Euh, pour reprendre euh, en tout cas pour reproduire est-ce que euh, nekk na loo xam ne dina baax na pour un homme d'État un homme d'État en tout cas koo xam ne dafa aspirer à diriger le pays. bon xam nga ku nekk ak sa stratégie de communication. man par exemple ba ci dem ba ci discours discours de la rue bi. non bàyyi ma expliquer la ku stratégie de communication. parce que man man man par exemple man sama sama sama stratégie leen la. Mhm. constatation proposition solution. Mhm. Ousmane Sonko stratégie nan la peut-être révélation la après proposition et solution c'est-à-dire ku nekk sa stratégie xam man soo dégloo sama discours man je t'amène le Sénégal fu mu déparé ba fu mu toll l à dire je fais la constatation avec des solutions bien sûr et des propositions Ousmane Sonko peut-être bañ ko lu ñu ko xamee maanaam faire de révélations et tout affaire noonu c'est son style dañ ko koy nangul maintenant discours de rue bi il faut tenir compte d'une chose Ousmane Sonko wóoluwul justice sénégalaise man wóoluwuma ko te xam naa ñi seetaan ñu bëri wóolutuñu justice sénégalaise parce que gis nga justice xam nga la maanaam ay dossier la yu ñu géré ci ay tiroir mhm. yii dañ fa yàgg ba poussière ñu xëcc de poussière yi bees na itu affaire noonu maanaam mais dañu sant ay nit ñi leen wooye magistrat ñu war a ja nu mu tuddati xool ko mhm. teg yëpp ci yoon saytu ko saytu ko feeñal mhm. dëgg léegi ci biir loolu am na parce que man xam naa ne am na ay magistrats yoo xamante ne ay nit yu am diine lañu. Mhm. la preuve Macky Sall mi ngi ciy muté ñu bëri ñoo xamante ne da lay ne ñii nii am diine at bëgg seen liggéey at gëm seen liggéey moo tax ñu muté leen. ay rigueur aussi. waaw ay ay ay ah non ay mutation punitive ay yóbbu nit Tamba alors que Dakar dëkk yóbbu nit Saint-Louis xam nga loolu mooy maanaam yow buggoo maanaam sëgg ni sa yeneen morom yi sëggee. Mhm. maintenant nag ñu sëgg nag ñoo gën a fës parce que ñu sëgg la moo tax ñu gën a fës mooy président bi ñoom moom moo am doolewu di teg fu ko neex léegi nag su jëlee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nangul sëggal ko c'est normal que ñooñu ñoo gën a fës moo tax maanaam justice bi dem ba benn sens Sénégal ñu bëri gëmuñ ko mhm. léegi nag comme Sénégal ñoo jël justice bi dénk ko Macky Sall Macky Sall ko ay magistrat yoo xam ne maanaam wóolatuñu leen léegi nag ñi ko dénk ko Macky Sall ñoom ñoo ko jël tur ko ci mbedd bi léegi nag justice sénégalaise boobu nag c'est pas le discours d'Ousmane Sonko qui mène la rue maanaam c'est la machination de la justice moo yóbbu coow li ci mbedd bi xaw ma na baax dégg nga li ma expliqué xam nga parfois coow day am ci kër mhm. coow mën na ñaari ñaari doom mën nañu xeex ci biir kër pàpp jël yoon doxal ko wala su pàpp jël tukkee taaw jël yoon doxal ko yaay jël yoon doxal ko. Mhm. mais suñu leen seetaanee dañuy joxante rendez-vous ci biir mbedd bi. c'est exactement ça. Mhm. maintenant nag dañoo joxoon Macky Sall benn confiance ñu ne ko dañ defal président bàyyil ñu justice bi mu àttee yoon bu ci dugg bu ci def dara et tout. Mhm. Macky Sall ne noo je vais de gérer la justice sécuriser justice président mënu ko sécuriser au contraire si justice mooy sécuriser Macky Sall mais Macky mënu sécuriser justice. parce que pouvoir entier la comme. Euh, président de la pouvoir justice moo ëpp doole bi Macky Sall. Mhm. Macky Sall ba muy ba ba ba lan lan moo ko def président lan moo officialisé mu nekk président. dafa dem ba ci magistrature bi pour lan. pour taxaw prêter serment. kon kooku moo la sut. Mhm. voilà. kooku la sut léegi muy noonu. Mhm. moom su doon su doon c'est-à-dire su doon su doon su doon doom maanaam su doon doom bu ñu a tudd justice moo ko tudd. Mhm. justice moo nodd ci nob bi ne ko yaay président. pour deux mandats wala pour un mandat x. kon yow ku la tudd kooku da nga ko mën a ëpp doole da nga ko mën a mag. waaw ah, léegi jeex na Macky Sall mu war a xam mooy day dem bàyyi fi justice bi. lu mu mënti ragal ci justice bi moom moo koy liggéey mais du askanu Sénégal c'est-à-dire def ay jëya bloqué ay corps de contrôle bloqué ay rapport et ba nga xam maanaam da ragal ne su ma demee di defi kii loolu moom mënu si dara parce que moom day dem justice bi day des incha allah. c'est ça alors dernier point bu ñuy aborder Tahirou euh, temps bi jeex na euh, la mesure sur le loyer baisse de 5 pour cent 10 pour cent et cetera. Euh, defoon nañ ko en 2014 mu échoué euh, annoncé nañ ko le premier janvier jotul euh, mise en œuvre bi jotul am février également mars bi tey décret bi génn ci conseil des ministre bi amoon ci Sédhiou mën nañ ci am yaakaar. xam nga dëkk. Mhm. soo gisee boroom xam-xamu tubaab yi ne la président huit ans. Mhm. ba dix ans kese la mën diriger dëkkam su ko rombee rek jeex na. xamul ndax loolu parce que dañ ne soo defee sa dëkk huit ans saaskan dañ lay commencé jéppi soo defee dix ans dañ lay commencé bañ. même bu dee yaa ngi liggéey. <laughs> bàyyi ma expliqué la rek. <laughs> oui askan bi faluñ la pour yow nga liggéey mel ni da ko may. Mm-hmm. Macky même su wàññee même su wàññilee loyer bi. Mm-hmm. mayuñ ko ko dañ koo fal pour mu yombal suñuy dund. dañ koo fal pour muy defar pont dañ koo fal pour mu fexe maanaam ndox yu taw yi du taa dañ koo fal pour que tali yu normal xam nga lu lu garaaw mooy defar ay pont defar ay tali et ba pare di ko bàqu mm-hmm.